أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yal nañu yàlla boole jéggal yal nañu yàlla nangul di dellusiwaat ci sunu dars siira tey ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi jël gazwatu badrin al kubra ñu ngi jël tey xare bi nga xam ne moo njëkk ci xare yi xare bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk a xare xeex bi mu njëkk a xeex daje bi njëkk am diggante dëgg ak fen diggante wéetal yàlla ak bokkaale diggante dëgg ak neen te mooy xaswatu badrin li ko waral nag njëkk balaa ñuy wax xeex bi mooy fakkara rasul sallallahu alayhi wa sallam fi istirdaadi amwaali almuslimina allati sulibat fi makka inti yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam dafa xalaat naka lay def yan yoon lay jaar yan pexe lay tëral ba alal yi nga xam ne moom la yéeféer yi nangu woon ca Makka nangoo ko ci julli di alal jooju naka lañ koy dellusi bi yenent bi toogee di xalaat ci loolu ndeke waa Makka yéeféer ya dajale nañ alal ja ba jox ko benn waay bu tudd abi sufiyaan ne ko demal nga commerce ci jullit yi bañ nekkee màkka balaa ñuy gàddaay yéeféer yi dañoo dal seen kaw nangu alal ja takkaayu jigéen ña nangu tool yeeg marchandise meeg koom gi jaay kër ya lañ ca mënoon rawale yépp ñu rawale ko dajale ko ba mu daj daal di koy jox kenn ci kili seeni kilifa ku tudd abi sufiyaan ne ko demal saam nga commerce ci boobu yonent baa ngi doon xalaat naka lay def ba delloo si alal jooju ci saase rek yonent bi yëg ne abi sufiyaan mi ngi war a romb Madine ak alal jooju def ko ci ay gëléem jëmee ko Madinatul Munawwar jële ko saam ca saase la yonent bi alayhi salaatu wasalaam takk xare takk gawar yi ci benn bés ci bisu àjjuma yi benn bis ci bisu àjjuma ci weeru koor ci fukki fan ak juróom-ñaar ci ñaareelu at ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xew-xew bii di badr calaam kon julli buñ ko laajee ne ko badr ban bis la woon li muy tontu mooy bisu àjjuma ci ban weer weeru koor ci ban at ci ñaareelu at ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan moo doon sabab bi mooy yonent bi dafa bëggoon delloosi alal jiwaa Quraysh nangu ci jullit yi yóbbu ko saam di ci commerce jox ko kilifa guñ naan Abu Sufyaan ibnu Harb waaye yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu yëgee loolu ba yabal julit yi nañu takku mu yabal leen ndeka waa jooju di abi sufiyaan yëg na mbir mi mu daal di teggi yoon bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg saxaaba yi pour bu fa ñëwee ñu mën a nangu alal ji moom yëg na ko mu daal di teggi jaar beneen yoon bu mu jaaree beneen yoon fekk la ko jiitu yónni woon na benn waay bu dem xabaari ji waa màkk ne leen yonent bi kat génn na ànd ak mbooloom war a nangu alal ja waa màkk yi bañ déggee loolu ñoom it ñu daal di takku daal di jël seeni mbooloo gàddu seeni jaasi war seeni fas fas yéene woon àddina bi ñoom ñooy ñan ci jamono yooyu Abu Sufyaan teggi ak njëgg mi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëg ne Abu Sufyaan teggi na waaye terewul loolu yëpp ndeke yàlla namoon mbiram ndeke ñaari groupe yi ñaari mbooloo yi foog ñu daje ndax yàlla dëggal dëgg gi yàlla neenal caaxaan waa Quraysh te mooy yéeféer yi ba ñu yëgee ne Abu Sufyaan rëccal na njëgg mi ñoom lan lañ wax même bu mbir mi rëccee Muhammad duñ ko bàyyee noonu foog ñu won ko ñun ñooy ñan foog ñu won ko sunu diisaayu loxo foog ñu dem ba Badr ñu rey fa sunuy gëléem naan sàngara njaalo faak sunuy jigéen tëgg sunuy ndënd fecc fa ba nit ñi yëg ne waa Quraysh duñu ñu ndaw ay ponkal lañ àddina bi yëpp ànd ragal nu ah ba loolu amee ñu daal di génn jëm Badr ndeke jullit ñi jiitu nañ leen fa Badr soo ko déggee jamono ju nekk barabu ndox la barab la boo xam ne ndox la am ay teen yu am ndox moom la ñuy wax Badr yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génneeg saxaaba yi ñu jëm barab boobu dañoo jékki-jékki rek mun a saxaaba yi taxaw leen fii baax na benn waaye ne ko lii lu ko waral mu ne ko fii daal dama jàpp ne moo baax waa ji ne ko déedéet nan dem ba Badr ñu jiitu leen ci ndox mi ñu naan ñi sangu-sangu ñi jàpp-jàppaat ñu tànk ndox denc daal di sakk teen yi waa Màkka bala ñu yegsi fii day fekk mar nañ bu ñu yegsee du ñu mën xeex ndax day fekk mar nañ bu ñu xeexee ñun ñu rey leen mbokk yi bi loolu amee a ñaari kuréel yi nag war a dàkkaarloo yàlla namoon mbir mi am yàlla gàcceel leen ñoom waa Qurays yàlla daal di dimbali jullit yi ñu gañe leen ndax keroog yéeféer yi junni lañ woon jullit yi nekk ñetti téeméer ak fukk ak ñett xam ngeen ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett mënuñu dékku junni nit waaye pas pas bee tax pas pas la jullit di doon xeexee boroom xam-xam yi yàlla nu leen yàlla fayal nee nañ xeex boobu yàlla wàcce na ci sax ay malaak jàngal leen nu ñuy xeexee ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñaan yàlla keroog ba kaala gi wadd ndax yëkkati bi mu yëkkati loxo yi ni mu mettee abubakar radiallahu anhu waar daaw jël kaala gi tegaat ci bopp bi yonent bi ñaan ba kaala gi waddaat abubakar tegaat ko ci bopp bi yonent bi ñaan ba kaala gi war daa abubakar ne ko doy na yàlla du neenal sa ñaan jékki-jékki rek jibril wàcc ànd ak ay malaaka gàngoor mikaayil asrafil malaaka yooyu yëpp ku ci nekk ànd ak ay gàngooru malaayika yàlla ne leen bu ngeen di xeex ak gaa yi dóor leen ci baat yi ak ci tënk loxo yi xam nga ku ñu dóor jaasi ci baat baat bi day dagg bopp bi day naaw waaye ku ñu dóor jaasi ci tënk loxo ba moom dootul tey jaasi sun borom subhanahu wa taala daal di mbay may sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ak jullit di ndam keroog rey nañ ñu bare bari ci ñoom rey nañ Shayba rey Walid rey Utba rey Abu Jahl rey ci yéeféer yi juróom-ñaar fukk daal di jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk keroog li nga xam ne moom moo faatu ci jullit ñi paasewul juróom-ñetti nit jullit ñi gañe leen jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk rey ci ñoom juróom-ñaar fukk li faatu ci ay jullit boroom xam-xam yi nee nañ arbata achara rajulan fukki góor ak juróom-ñaar la ci mbooloo moo xam ne ñetti téeméer lañu woon ak fukk ak ñett doon dajeeg junni nit mu nekk première ndam ci ndamul islaam yi mooy gazwatu badr xeexu badr muy xeex goo xam ne ci la tawxid samp shirk daal di daanu yàlla subhanahu wa taala may juli ni ndam may jaamam bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndam yàlla wàcce malaaka yi malaaka yi xeex ànd ak julit yi boroom xam-xam yi nee nañ walam tuqaatil fi mawqia siwaha malaaka yi musuñoo xeex lu dul ci xeex bi bii rek lañu xeex ndax lañ nombre lañ woon bu yàlla wàcce pour ñu baril julit ñi may leen doole may leen kàttan bis boobu tuddee nañ ko ci alquran yowmul furqaan comme ni mu ñëwee ci alquran ci suratul anfaal yàlla tuddee na ko yowmul furqaan boroom xam-xam yi tuddee ko badr mooy première xeex bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xeex lu ñu ciy jële nag mooy xam ne xeex te mooy jihaad du denc lislaam keroog bi ko jullit ñi bàyyee ci la jullit ñi yaafus ba tey ci la jullit ñi nooy ci la jullit ñi yàccaaral ci la jullit ñi deltu ginnaaw ndax lu leen yàlla diggoon loon leen ay aaya la ci alquran yàlla mu ne wa qaatilu fi sabilillah xeex leen ci yoonu yàlla wa qaatiluhum na ngeen xeex ak ñoom xataa laa takunu diin xataa laa takunu fitna wa yakunu diinu kulluhu lillah na ngeen xeex ak ñoom ba bokkaale jóge fi diine yépp nekk yàlla wa qaatilu fi sabilillahi alladina yuqaatilunakum wala taatadu inna allaha la yuhibu almu'tadin xeex leen ak ñoom comme ñoom ni ñuy xeex ak yéen waaye bu leen jalgati bu leen ëppal ndax yàlla day subhanahu wa taala bëggul ñi ëppal alla tuqaatilu qawman nakasu aymanahum wahamu bi ixraaji rasul wahamu wahum badaaukum awala marra yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla wax na ko ci alquran ne lu leen tere ngeen xeex ak ay nit ñi nga xam ne dañoo fecc seen i kóllëre fecc ngëm gu ñu waxoonte nag yéen ñoom ñoo ko tàmbali ñoo tàmbali mbonteli ndax ñoom ñoo génne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñoom ñoo leen njëkk a génne kon yéen lu tax du ngeen xeex ak ñoom ataxshawnahum ndax yéen da ngeen leen ragal fallaahu ahaqu an taxshaw in kuntum muminin yàlla rek moo yey ngeen ragal ko bu fekkee gëm ngeen yàlla bu leen ragal benn yéefér ragal leen yàlla subhanahu wa taala ba tey borom bi subhanahu wa taala wax na ci quran wallazina amanu walam yuhaajiru ma lakum min wilayatihim min shay hatta yuhaajiru yàlla nee na ñi nga xam ne ay jullit lañ way gëm yàlla nekk mag lànkoon bañ a gàddaay fekk yonent bi yàlla nee na ñooñu day bu leen aliyé ak ñoom ñooñu nekkatuñu seeni mbokk ba ñu gàddaay rek bàyyi yéeféer yi fekk ci jullit yi kon li ñuy jàng ci dars badr mooy xam ne ay jullit lu ñu néew néew néew néew néew bu ñu gëmee yàlla ñooy am ndam ay jullit lu ñu ñàkk-ñàkk armée bu ñu gëmee yàlla am ndam ay jullit lu ñu seen lim lu mu néew néew néew néew bu ñu ànd ak yàlla subhanahu wa taala kenn mënu leen a gañee lu ñuy jàng ci badr mooy mbooloo mu bari amul importance arme bu bari amul importance li am importance mbokk jullit yi mooy ngëm yal na nu yàlla may ngëm keroog ba jullit ñi amee ngëm keroog ñetti téeméer lañ ak fukk ak ñett yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngay ñaan yàlla naan ko yàlla ñii rek nga fi am buñ leen reyee kenn dootu la jaamu ci kaw suuf waaye gis ngeen keroog yàlla dimbali na jullit ñi ñu daal ci génn yàlla may leen victoire kon incha allah mbokk jullit yi li moo doon dar su tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu